dal leen jàmm covid 19 bi daanaka coronavirus bi mi ngi lotal sénégalais yi commencé na sonal nit ñi am na ñoo xamante ni commencé nañ fippu ci wàllu woolee ne luñ leen imposé woon ci wàllu restriction dañ koy commencé di jalgati sama naataango bi di journal La Tribune ne akama ci xam dara ndaxte gis naa fële ci mbuur benn imam boo xamante ni moom ak noddukat jot nañ leen kon arrêté Kaolack imam mosquée bi imam grande mosquée Léona Niassène ñu convoqué ko ci commissariat central bu Kaolack naka noonu ci Diourbel benn doom tuuti mu rey baayam ci wàllu wowle naka noonu ci Jandeer ku nekk gis na population yi nu ñu génnee manifester ndax dañoo buggul benn yoon yenn personne contact ñu génne foofu leen ñu yóbbu leen ci confinement manaataango ne ah Léona Niassène jot na envoyé benn défiance état Sénégal manaataango bi di Vox Populi ne ah loolu la ñu wax ndaxte ñoom xalif bi nee na ubbi kon mosquée bi julli te ñu ngi xaar bu baax a baax kon force de l'ordre ji ñëw foofulee bëgg leen empêcher lu nu mel sama naataango yokk ni xalif bi demoon na soutenir kii di vice-imam bi ndaxte Mouhamad Niass dañ ko convoqué woon foofu gannaaw bi mu diriger kon prière vendredi bi prière kon jumaa ji démb sama naataango bi di journal L'As ne toll ni dut amatul Léona Niassène défié na état Sénégal naka noonu itam ci Touba ak controverse ci quatorzième décès leen nag lan moo merloo famille boobu famille boobu dafa jàpp ni kon ministère de la santé daf leen offensé kenn ci ñoom ne ministère bi bu ne kooku coronavirus moo ko faat du dëgg kon diabète moo ko tëral def na léegi presque dix dix ans moom dafa feebaroon te yàlla moo ñëw yóbbu ko ku nekk xam na lu mel sama naataango bi di l'observateur ne ah démb ci Touba tension bi monté woon na ndaxte ñu bëri dañoo mer woon kon ministère de la santé samana naataango bi di l'observateur yokk ni lu gën a merloo nit ñi mooy daanaka ci communiqué kon ministère de la santé dañoo ne moom góor gi mi ngi génn àdduna 6 heures 10 minutes waaw ndax erreur la walla leneen la te ku nekk xam na du heure boobu le kooku génn àdduna kon naataango ne ah autorité médicale yi biñ leen laajee ci wàllu wule ñoom nee nañ bëgguñu wax bëgguñu wax ci loolu ndaxte dañoo jàpp ni question bi dafa sensible ñu mentamel kii di Serigne Abdou Khadim Mbacké jot nañ ko denc ci fële ci Baxiya cimetière Baxiya kon avance kii di ministère de la santé publié communiqué ci wàllu woole nu mantamel Sénégal franchir na barre 1500 cas yi loolu la journal laas wax ci juróom fan cinq jours cinq morts loolu la libération wax sama yokk nii benn cas jot nañ ko détecté fële ci quinze heures ñett ñu détecté leen ci service hôpital Fann ay nag yàlla jeexul ndaxte am na ñoo xamante ni feebar wi du leen faat lay ne waxati ko 239 patients jot nañ kon génne ci l'hôpital yi ci juróom fan yi ñu génn libération yokk ni mu toll nii six cent malades jot nañ wér ci Sénégal la naataango bi di l'observateur waxati nag ci démission Habib Sy ci comité de suivi force Covid 19 ñu laaj sama naataango lan moo tax kii di Habib Sy controverse affaire xaalis la wala lan la sama naataango ne ah en tout cas premier problème mooy daanaka ci ci doxin comité de suivi bi la daanaka lu mu proposé ak gars lu ñu proposé da lu mu proposé daay teg ko fële d'accord ci lu opposition bi moom moo doon disier li nu mel trois millions cinq cent yi wax fële ci presse bi loolu metti ñenn ñooñu kon climat boobu moo tax kii di Habib Sy génn ne moom nekkatu fa sama naataango bii di journal enquête def moom itam reportage ci boucher yi ak ñiy jaay yàpp sama naataango ne fu mu toll nii daanaka sa bamba wul ndaxte eh, dañoo nekk ci période de crise moo ne de heure bi lañ doon gagné daanaka seen chiffre d'affaires bu gën a bëri waaye nag pandémie covid 19 bi moo indi lu mel wàññi lu bari sama naataango ne ah fu mu toll nii crise bi nag daanaka indi na incertitude totale ci lu ñuy jaayee ci seen am-am bi waaye nag ñu ngi xaar bu baax a baax fête de Korité bi ñu xool ndax seen bamba dina maase ñu jeexal ak sport ci sama naataango bi di journal sama naataango bi di journal record wax ci Kalidou Koulibaly ndaxte temps yëpp ñu ngi xool naka lañ koy transféré jaay ko am na club yu bëri ñu ko doon wër xool jaay sama naataango ne ah fu mu toll nii bi ñu ne 67 milliards lañ koy jaay daanaka club Paris Saint-Germain Liverpool ak ñeneen ñoom ñooñu ñooñu yëpp dëggaat nañ baal bi reculer. asalaamaaleykum dal leen ak jàmm. tey jii ëttu yéenekaay li leen soxal mooy law bu gaaw bi nga xam ne moom la mbas mi di law rawatina faat bi muy faat ay bakken imaam bu lew na ña seen bu ñu woole woon ci police it soxal na ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool dañu koy dóor ak Sud Quotidien Sud Quotidien nag moom li ko soxal tey jilee mooy waxtaane ñu nan la ñuy def ba bay dundee ci wàllu ceeb ci mim réew ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication di ñu xamal ne programme bii ñu duppee PNAR te ñu tegoon ko fi ngir lépp loo xam ne dañu ko bay ci wàllu ceeb mu mun a doy réew mi moom daal ba fi mu vote gisaguñu ko ci atum 2014 ba tey jilee at boobu sax la ko président de la république di Macky Sall jëmaloon loolu nag mi ngi dajee jamono joo xam ne réew yi nga xam ne fa lañ doon jëlee ji boobule ceeb bu ci mel ne Inde ñoom it dañ doon jéggaani di uti ceeb biti réew panaar boobu nga xam ne mëbët yi ñu ngi ko doon xaar ci atum 2017 nag ba fi mu toll nii daal mëbët yi dara antoogu ci donte jël nañu ay milliards yu takkoo takku dugal ko ci yooyu le programme suñu nattaangoo bi faree ci avenue Bourguiba jox ci kàddu gëstukat bi di liggéeyee ca ISRA Oumar Ndaw Faye nee na faw ñu xoolaat bu baax a baax mbir yi ngir mën a saafara jafe-jafe yi Baba jàll moom day bay ceeb fële ci vallée bi nee na faw programme yi di PRACAS ak PNAR ñu saytu leen bu baax a baax amal ci ab audit ci jamono jooju nag directeur général bu SAED di abu yi Sow di xamle ne bay nañu luy tollook benn million ci ceebu padi bu toftalu fukk ak juróomi junni ton téeméeri milliards yoo xam ne coow la gën a jur loolu la waa enquête bind ci seen bu njëkk enquête xët yu bëree bëri koppar gi nga xam ne moom lañ juppee force covid 19 ngir xeex mbas mi ci réew mi rawatina nag jàppale askan week ak yi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe te mu bawoo ci mbas lee suñu naataango yi di nga xamal ne liñ ci doon xaar gisaguñu ko ba tey mu jëm ci wàllu wér yaram njàng beeg njàngale mi rawatina ci wàllu mbay mi moo tax it jàngalekat bii teg ci di gëstukat di Cheikh Faye nee na li ñu war daal mooy teg benn plan boo xam ne bu mucc ayib ñu duppee ko plan Marshall ngir wér yaram bi jaar yoon ci sunu réew wax tolluwaayu mbas mi ci suñu réew covid 19 tax ba ñu am fukkeelu doomi aadama ak ñeent bu ñàkk bakkanam ci mbir mi ci juróomi fan juróomi doomi aadama ñàkk seen bakkan ku mu jikki mi ngi amoon juróom-ñetti fukki at ak juróom dëkk fële ci nguy mbind mi ngi ñàq bakkanam ci mat la bul lopitaalu Matlaboul Fawzeyni bu dëkk bu sell ba loolu tax Touba fi am ñaareelu doomi aadama bu ñàq bakkanam ci mbas mi mu yóbbu mbir yi ci fukk ak ñeenti doomi aadama yu ñàq si coow bi nga xam ne moo am ginnaaw kii li doomi aadama ak ñeent bi nga xam ne moo ñàkk bakkanam fële ci Touba njabootu ndem si yàlla gi mer ba fut la ñu def jarbaatam bi di sëriñ Abdou Karim Mbacke di xamle ne faatub sëriñ Abdou Karim Mbacke moom utewul lenn ak coronavirus ndax ndijaayam gi fukki attangi a nii mu tawatoon sëriñ Abdou Karim Mbacke teg ci ni ndem si yàlla ji moom ci boppam moo gëjoon a génn ndax daa amoon jabet ñàq ci ñaari tànkam moo tax dematuloon fenn kër gi nga xam ne fa ci njabootam jël si nañ ko yóbbu ko ci kër docteur ñu wax ba tey ci law bu gaaw bi nga xam ne moom la mbas mi di law ci suñu réew ñu ngi ci junni ak juróomi téeméeri malaat ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci waa laas boobu boobule nag indi jeexi jaaxa bu am solo ndax suñu réew dafa sax amul ay bërëb yoo xam ne limu malaat yooyu le danañ leen mën a toppatoo ni mu waree Dakar moom jege na bu baax a baax junni malaat ginnaaw gi covid 19 bi dooree ci suñu réew waa libération ñoo ñu koy xamal soleil ci xëtam bu njëkk di xamal ne ñaari téeméer fanweer ak juróom-ñeenti malade ñoom jot nañoo wër ci mbas mi ci diirub juróomi fan donte cas positif yi ñu ngi gën di bëri ñi nga xam ne ñoom la ñuy saytu ci kër docteur yi nag wàññeeku na bu baax a baax ci ay bés bi ñu nekk ñu des ba tey ci wàllu covid 19 boobule rawatina mbir yu doy waar yi nga xam ne moom la jur ay imam ak ay bilaal yu ñu woolu ci police wala teg leen loxo jafe-jafe yu bëri yu ci bawoo na kenn koo xam ne dafa faat bakkanu waajuram bu góor imaamu Léona Niassène dañu kaa wóolu woon ca police ci mujjanteel ga ñu bàyyi ko mu dem ñibbi ak convocation imaam boobule ak it ki nga xam ne moo topp ci moom teg ci it ki yore kàddu njabootu Léona Niassène tax ba démb daal mbir yi naroon na jéggi foofu foofule wan borom bi moo si ndox mu sedd bu ñu sukkandikoo ci les échos ni ñu tegee loxo ñooñu le ay taalibe ak jegeñaale ñooñu ñoo leen topp dem fees ci commissariat xalif bi demoon na ci boobu boobule ñu des ak xalif bu lew na ñaseen nga xam ne daal ay kàddu yu dëgër dëgër la yëkkati muy xam ne ne dinañu ubbi jumaa ji te dinañ ci julli Cheikh Ahmed Tidiane Niass di artu ñu ngi xaar ba xam kan moo nare ñëw tëj jumaa ji lew na ñaseen ubbiwaat na jumaam teg ci di artu nguur gi bu ñu sukkandikoo ci waa Vox Populi 24 heures dellu si moom it ci kàddu yi nga xam ne moom la xalif bu lew na ñaseen yëkkati xalaatuñu benn yoon tëj jumaa ji mi ngi fàttali président Macky Sall ne bu nekkee ci bopp réew bi nag yàlla lew na ñaseen la ak jalgati jalgati yi ñuy jalgati mesure bi nguur gi jëloon ne dañuy tere julli juma waa quotidien ni daal mbiri daal takkar takkarnaase na bu baax a baax jëmale ci mbas mi quotidien dellu si si kàddu yi nga xam ne moom la xalif bu lew naña seen yëkkati ñu ngi taxaw temm di xaar polis ci jamono jooju suñu naataango yi di ñu xamal ne ci Medina Gunaas donte nemmeeku nañu fa ñeenti doomi aadama yu yees yoo xam ne amee nañu doomu jàngoro bi taxul benn yoon ñu dakkal julli jumaa ja ñu ngi ko fay wéyal stade moom tey jile di ñu waxtaanee maane ñoo jàllo ak crépin ñeent ñi daal ñoo saf waa l'Europe gaynde bii di Sadio Mané moo nekk ci xelu Zidane Mbaye ñaam moom fi mu toll nii daal waa Marseille soxla nañu ko bu baax a baax Chelsea ak Tottenham bàyyi xel bu baax a baax Habib jàlloo Crépin Diatta moom Milan ak Ajax moom la ñuy waatee sunu lomb tey jii jox kàddu ki nga xam ne xelam daa màcc jëm ci wàllu tàggat yaram nekk fële ci INSEPS moom Jibril Seck addu jëm ci jële ci bopp CNG kii di Alioune Sarr yorinu CNG le ak tekki ndombo tànk yu bëri yi nga xam ne moom lañ nemmeeku ci kuréel boobulee Jibril Seck di xamal waa sunu lomb ne leen ne bu dee mbir yi dañ ko jël teg ko ci ndodd benn nit lañ ca bëgg duñ ko ci am du tekki ab ndombo tànk mooy tax ba CNG tegu ci yoon lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm. ñu wàccee baat bi quoi parce que commencé ragallu. Eh, covid bi day màgg kaw la jëm. xale gën a bu am ñaari at monsieur le maire. ñaari at man looloo ma jaaxal. deux ans. waaye bo mais Petite Côte bi bo ci bomb la toog instant bi mbuur xale bi te ba pare xale yu ñaari at kenn xamul fan la ko jëlee ba tey. looloo jaaxal ñëpp deux ans waaw. fanweeri doomu aadama ak juróom-ñeent ak ñaar fukk ak ñaar ñu liggéey kër docteur ñëpp dañ leen a quarantaine. nii nii nii nii. ñun kenn xamul lan. sa mbuur loolu moom yéeme na nag. ki gën a nekk xale ki dee. bi jàngoro ji commencé ak léegi fanweeri at. 37 ans ak juróom la am. voilà moo nekk noonu dégg nga waaw moo nekk noonu daal. mais gis nga monsieur le mm-hmm. voilà ceeb baa ngi ceeb baa ngi <laughs> tonton ceeb baa ngi nii. ana waa ceeb bi. ni nga xam ne waruñoo am ci bourse familiale yi ñu indi coow li ci ceeb bi. déedéet am na préfet yoo xam ne bi ñu leen indilee liste yi xoolal texte boobu ñu yoonee démb. Mhm. benn préfet bu nekk fii nii ci benn. commune fii ci Dakar. tamit nee na délégué de quartier seen janq yi leen di liggéeyal ñu baal ma mbindaan yi sax dañ leen bind ne boole leen ci liste yi. liste liste liste bourse familiale. et député ba ma wax démb. muy muy layam layamal naan non bi ma nekkee député ba tey sama jabar. bokkatul ci liste kon yow bi nga nekkee responsable Macky Sall yaakaar la dénk la ay militant kon yow sa jabar nekkete da nga koo bindoon yow ci liste yi ci liste yi encaissé yow yow yow yow yow amoo sax kii kii amul sax jom waaye muy justifié naan naan sama jabar bi mu ci nekk boobu nekk gu ma député waaye ma nekkee député ci laa ko ci ah, génne kon yow étant un haut responsable ndeke yow da jëloon sa jabar bind ko ci ndimbali ci ah, ndimbali moom bu jabar bu bindee jabar ji militant yi nan lañ war a def Ah, Mohamed Samb nee na mhm. coowal Akile léegi ak ñoom Matar Cissé nee na mais Matar Cissé def ay résultat moo tax Macky Sall dénk ko pétrole bi ak énergie bi dafa leer ñi koy song nii ay noonu lañ leen ko bàyyi mhm. Matar deful lu dul defar douane defar Sénélec ñu def ko ministre pétrole kon ay noonu ma koy at ata ata ah, tamit nag Mohamed Samb yow du samay kàddu dégg nga loolu Mohamed Samb la sala yéen a kaay ñun ci